thank you ñoo am mbégte dellu siwaat fa séq ak yéen waxtaan ci li xew démb ci réew mi muy loo xam ne ma nga xewoon ca tribunal ba ñii di ko wooye procès man ma koy tuddee procès u film pornographique boo xam ne lenn rekk la def wàññi daraja réewum Sénégal doyadil bànqaas yi nga xam ne ñoo téye di cëslaayu république képp kuy doomu sénégalais nga am pudeur maanaam nga bëgg luy sutura nga xam lan mooy honneur xamit lan mooy dignité mënoo rafetlu la xew démb ci tribunal bi république bu Sénégal moo wàcc ba suulu walla ma sax wax ma yegg suuf mais dafa suulu institution yu nànk république bi yépp démb sa ngee mën nañ jooy taq ripp ci gàcce taq ripp ci gàcce ndax foo nat ñaaw téef foog naa ne mënatuñu weesu lu xew démb ca tribunal dañ ne doomu sénégalais bu ne am nga droit bu nekkee ne na nga jàpp ne dañ laa tooñ nga porter plainte viol ñu dem ba criminaliser ko kon mënuñu ñoo wax ne xale bi dañ ko sàkku violé ko mu dem bëgguñu àtte ko déedéet ci ñaawteef démb lañ gis ci melokaan lañ dégg ci kàddu dama ne gémmiñ gu waxul dëgg wax fenn salte na bii xeetu salte procès viol bu ne juge yi àtte nañ ko fii ci réewum Sénégal waaye démb wax fa dëgg neex yàlla gàcce mun weesu kàddu yu ñaaw yiñ den dégg ca tribunal musuñoo gis ba senegaal du doon Sénégal ba tey jii ku ñu violé nga am odaas boobu génne kàddu yu ñaaw yi ni nga ko mën a génnee ba def sa bopp star ba ñenn ñi jàppee la star mascarade érotique procès pornographique kenn bind livre ah. parce que démb lépp luy orma lépp luy sutura ci réew mi dañ ko xotti duma wax orma ak sutura ndax lu fi jib yépp ku dafoo jënne jàpp la nga am xel tuuti rek wax ma sa xel mu bari xam nga ne la xew démb ca tribunal moo raw théâtre théâtre sax duñ ko ko tuddee film pornographique lañ gis démb ci tribunal li ci métti yépp nag mooy dossier bii lu mu bon bon ci weeru mars deux mille vingt et ba ñu ko yëkkatee ñaar fukki doomu senegaal te jii bu ñuy lim lépp seen bakkan rot na waaye fukki bakkan ak ñeent rotoon na ndax dossier bii ñu dem ci ba bu ñuy àtte dossier bi suñu koom-koom day lompoñ ñu perte ay milliards yu bari lool ndax démb comme férié comme jour férié ñaati nit ñoo yàqule ndax dossier bii boutique yi day tëj banque yi daanaka nekk congé école yi dañ leen di jox vacances sénégalais yi tiit nekk ci njàqare dakaar ñu bunkeriser ko blindé yi génn bëgg naa sax xam ñaata ci alal la force de défense sécurité di ñàkk mu nekk alalu askan bi ci lii ñu xëy benn bés benn xale bu ndaw gëmloo ñu ne dañ ko violé woon lu toll ñeenti yoon te waa ji bu koy violé ñaari pistolet lay téye def nii xam naa waa war naa am kàttante am na doole de ñaari pistolet nga def ko nii nit ba pare mën koo violer ah torfa kàlla macha allah ñaari pistolet benn si ndeyjoor benn ci càmmoñ nga def ko ba pare bëgg bàll ma ci wax ji parce que na di tëye ñépp doon xaar ne procès ba lañu dikk ñaari atu yàlla vidéo audio lu ne ñu ñëw tegal ñu ñu kanam ku ñuy nettali film pornographique loolu lañu gis li koy faral c'est la violée préférée de la république ki nangu ñu violé ñeenti yoon nga koy doog a yëgle ci kàddu gi mu mel ni staru filmu porno wax ji mun ta rafet tey nii la ma juutalee nii la ma walbatee nii la ma dëppee nii la ma dëppanee nii la doon def mant star film porno yi sax mënuñoo nettalee nii de scènes sexuelles wax ji fu mu gën a ñaawee lañ leen dem di tibb di yëkkati di ko teg musuma gis violé ci procès bu woowee nii bët xam naa démb ñi bëgg film porno gis nañ film XXXXXL gratuitement li ma gën a jaaxal moo di pour la première fois au Sénégal une violée une violée nekk fi star man la ma doon faral di gis moo di xale bu ñu def loolu danga fay daw dañ koy wax sax day am répercussion psychologique da ngay daw góor dootoo bëggati góor danga koy daw doo ko ñeme ni nga ko war a ñeme dangay làqatu dafa am loo xam ne doo ko def parce que man am na fi benn kilifa ku mag boo xam ne dafa viole ku jigéen ki kilifa gu mag googu ku jigéen ki ba mu ñëwee dafay làqatu bëggul sax wax ak man ci message damay foog ñu gisee ma nettali la li ma def te ka ko defoon ministre la walla ministre la woon su nekkee ne mi ngi may seetaan ndaw soosoo xam na ko man xam naa ko kon li xew ci tribunal démb dafa jéggi dayu rafetul yiwul tegginiwul ñu nekk ci processus de déballage boo xam ne fu mu gën a ñaawee rek nañ fa tibbee pour gën a yàq deru Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo yey bañ a ñëw ci procès bi yeneen leen imaginer démb bu ñëwoon jàkkaarloo kooku may bañ a tudd ñu ne avocat la démb dégg naa sax mag ma doon tudd ma ne ko ak lu ñu ma mën a waral daal man defuma ma agression sexuelle bañ kon condamné ma cour suprême de Paris yóbbu na weng maa ngi dossier bi au complet yaa ngi leen imaginer ñu Ousmane Sonko ñëw à la taxaw jàkkaarlu ku ñu préparé pour mu tibb fu mu gën ñaawee xëpp démb ci procès bi ñaata masseuse ñoo nekk ci Sweet Beauty Spa mennum ki ne dañ koy violer moo dëggal kàddoom soo xoolee bu baax PV bi ñépp lañ waxoon soppeekuwul ñépp ba leen auditionné gendarmerie ak ban leen entendre doyen des juges dara soppeeku ci dafa méngoo xam nga loolu mooy lan gis nga boo tàmmee fen boo waxee tey lii buñ toogee même une semaine bu nekkee ne la nga wax du dëgg gi ay fen la bu ñu ko laajee une semaine day soppeeku mais boo waxee dëgg sa àqulaay taalaa bu ñu la ko laajee dix ans après même chose bi ngay répété seetlu leen baax li ma leen wax kon Ousmane Sonko moo yaay bañ a ñëw xam nga lu ñu bëggoon toroxal ko ci biir toroxal boobu nag xam nga lan moo ci nekk ci lu ko laxas moo di ñu ne moom day wane benn image te loolu du image bu réel moom ñun ñoo yem maanaam ñoom d'accord nañ nu ñu mel parce que wax naa leen fii ne buñ dañ lijjanti rek vie privée ñëpp hmm. yuuxu jib fuñ ko foogeewul woon yuuxu jib fuñ ko foogeewul mais jàpp nañ ne rafetul tegg nu liiwu dafa war a nekk un combat loyal de gentleman xam nga dans un pays sérieux te gouvernants yi respecte l'intelligence ñu ñuy gouverner maanaam réew mi bu nekkoon ne réew mu sérieux la ñuy jiite réew mi xam na ñun dofuñu xam nañ ko sax mais dañuy def def lu xamul tax ma wax loolu parce que dañuy dem campagne trois semaine dige lu ne wax lu ne wax ba seen bëli yu xotteeku pour ñu mën leen sànnil carte bu ñu faloo nag aki lépp doo ko wanee seen vrai jikko mais dans un pays sérieux li may wax muy juge muy magistrat muy képp koo xam ne yow gëm nga ne da ngay dee dekki billaahi wallaahi wataalaahi xam nga ne dossier bi warutoon dépassé sax état bu enquête gendarmerie ba yegg justice déggu leen ma de dossier bi warutoon dépassé état bu gendarmerie bay tàbbi suy loxo justice te li gën a garaaw moo di président Macky Sall bi ci njëkk dafa am lu ñuy wax waaw président Macky Sall bokkul ci lii complot beeg yooyu mane waaye nag mooy njiitu réew mi bu lenn xawee ba moom lu musul am fi ci réew mi mu def ko réquisitionné armée jël ay saar teg ko ci buntu palais xanaa warloo na ci tànn biñ ko tànn muy njiitu réew mi mu woo ñu séq mbir mi maanaam gendarmerie ba enquête procureur ndax mooy patron ministre de la mooy patron moom mooy moom sax wax na ko na leen je veux un rapport détaillé sur ce dossier. bu nekkee ne bëgg na Sénégal mu ne lii nañ ko teg ci suuf waaye deful loolu amul lenn looy wax ci dossier bi te Macky Sall xamu ko am na rapport bu leer nañ bu mu yor bu mu néew yor Sénégal fii maanaam ñun yor nañ ko maanaam dañuy ragal euh, rek ñu bóom ñu waaye bés dinañu jorul yàkkamti waxoon nañ ko sax ci rapport bi waraloon ñu suñu jàpp beeg yooyu yëpp ñu ci dellu si waat mais amul lenn looy wax ci dossier bii te président Macky Sall umpale ko amul Macky xam na ne PV bi dañ ko modifié ndax rapport ba wax na ko sur instruction du procureur xam na ko li capitaine Touré wax démb ca àtte Macky moo la ko gën a xam nañ lañu ñu mettre en surveillance la salon deux semaines wala une semaine avant xam nga mu mel ni viol programmé la xanaa viol doo def une semaine wala deux semaines en surveillance Macky Sall xam na ko ni ñu bëggee piéger Ousmane Sonko pour le mettre en prison maanaam jox ko rapidement convocation sans lever immunité parlementaire am Macky la xam na ko ni procureur laxasee mbir mi ba dugal ndey xaj ci dossier bi ak article yu mu dugal ak ba ñuy bundu xatal ndey xadi ca hôpital Albert Royer ak bébé mboom 800 grammes Macky Sall xam na ko li capitaine Touré daj ba mu jaral ko mu démissionné Macky Sall xam na ko Macky Sall xam na ne téléphone capitaine Touré dañ ko mettroon sous ko Macky Sall xam na ko. Macky Sall message yi capitaine Touré échangé ak Sonko pour jox ko convocation xam na ko lañ ko daggal moom jox ko ko xam na ko te loolu dañoo dagg genn wàllu message jox ko ko loolu yëpp xam na ko li certificat médical wax xam na ko lépp xam na ko. xam na ne ci aqulaay taala moom ginnaaw enquête ba ñu def gendarmerie ndax dañ ko wax dañu radier capitaine Touré wala déet dañ na ko bul radier capitaine Touré moom mu tànn ci coobareem radier capitaine Touré xam nga lu tax xam nga damay faral di dégg ñuy wax ñoom un soldat doit obéir aux ordres Mais un soldat est avant tout un serviteur de la République. Est-ce qu'un serviteur de la République doit obéir à un ordre illégal En obéissant un ordre illégal, il foule aux pieds lever les principes de la République. Un soldat, c'est un serviteur de la République. il est censé exécuter des ordres légaux. Mais s'il exécute un ordre illégal, il foule au pied levé les principes qui fondent la République. Capitaine Touré loolu la bañ ba mu gisee ndaw si ñëw di ko wax na ko lii su ma ko waxee mbaa du ma ci am problème sama tur du ci génn ak yooyu mu xam ne lii du du lu wér mu def la muy def ci PVM ak lañ bind yépp dégg lépp joxe ñu changé PV loolu capitaine Touré dafa bañ ne duma takk ci ñaawteef bi moo tax ñu ràjjeeku waaye juróomi kilifa yi toogoon ba ñu xoolee ba ci enquête bi ba ci pàndaw bi dañ na capitaine Touré mi waruñu ko radier loolu la ñu wax te enquête ba nag ma nga dooree gendarmerie doog a tàbbi ci justice Macky Sall xam ne loolu yëpp teewul mu ne na téeméeri sénégalais dee sama yoon newu ci am naa fi ma jàpp ci dossier ci opposant bu ma gën a ragal xam Macky Sall moo toog mu wax nit ne ko c'est ce jeune là Ousmane Sonko qui nous qui risque de nous tous à la retraite nous les politiciens classiques parce que nag xel du jariñ leneen lu dul xalaat Sonko tekkiwul dara Sonko amul dara waaye waaye li neex mooy ñu war a bokk ñëpp ñu bàyyi leen ñu bokk ci élection yi sénégalais yi tànn ku leen neex. su boobaa ñu xam ku tekki ak ku tekkiwul wante du yow yaay décider beneen mbir bi ñu bëri dañuy wax ne Sonko lu tax mu dem ci salon bi ñoom loolu la ñuy wax bàyyi leen sénégalais yi àtte na comme Sonko dafa dem ci salon bi ñun wóolootuñ ko dañ koy sanctionné bu ñu demee ci ay élection parce que moom mi ndey jimbi li ji miimul na dem na ci salon ba viol kenn du ko fi wax sénégalais yi nag te le peuple qui est Sonko daa dem ci salon ba am nga droit nga bañ ko votel yow bu nekkee na ci loolu nga sukkandiku mais am na ñoo xam ne loolu dérangé wu leen li may mun a bu soo waxoon rek Sonko dëmm bu mag la xale yi ne dëmm lañ bëgg Barthélemy Dias fii lañ toog il est lan violent il est incorrect su un insulteur sénégalais yi nag saaga maire saagakat lañ bëgg maire insulteur lañ bëgg ñu fi falu député ay saaga ñu ne ñoo tey ñu kii lañu bëgg saagakat kon donc le peuple est dem na ci salon bi c'est à c'est pas à vous de juger sa probité te ñi lay juger yëpp <laughs> li ma deetal loo ma ne hôpital buy xas dispensaire la parce que am na ñoo xam ne dañuy taxaw di wax bu leen génn leen seen dossier dañuy gàddaay génn réew mi mais loolu yëpp Macky Sall da xam na ko de mais nee na non il faut ñu taqal deru Ousmane ko foog procès am ok doyen des juges Maham Diallo moo tax jour bi ñu ko falee doyen des juges dafa am sama benn mag kilifa la ci man ci réew mi su may lim ñaar walla ñetti kilifa moom bu ci jiituwul du jël deuxième du jël troisième ma kilifa la mu woo ma ñuy waxtaan mu ma ah le jeune là qu'on vient de nommer Mame Diallo ah non il faut avoir confiance en lui hein c'est jeune boo xam ne dara yëngalu ko ma ne ko grand grand mu ne man naa mën a ko képp ku ñuy nommer man ci nguuru Macky Sall je te juge sur pièce maanaam. amul benn présomption bu ma lay jox man daal naa na pat du ma la tudd du ma la taas bañ jox la dossier nga traité ma doo a xam bu la paase rek laa doon waxtaan ak moom na ko ah grand mu ne ma non fekk dañ doon wax si dossier Adji Sarr mu ne ma non am na fitu classé ko sans suite na ko grand du ko def mu ne ma non tu ne le connais pas yow nag tu déjà ma ne ko du ko def. même bu ko xamee du ko def mu ne waaw ma ne ko billaahi wallaay taal du ko def day yóbbu dossier bi procès parce que loolu mooy bëgg-bëggu Macky Sall te Macky Sall du fal kenn koo xam ne du ko defal lu dul bëgg-bëggam amul la dernière fois mu woo ma ne ma jeune homme tu as raison ma ne ko ah oui <laughs> xool leen démb ci àtte bi gynécologue bi Alfousseyni Gaye bi nga xam ne dañ ko persécuté attaqué këram toj otoom def lu ne pour lan proposé ko lu ne pour lan mu changé certificat médical bi mu ne duma ko def damaa waat kon ni ma waatee noonu lay attee si li ma gis la ma bind démb seetlu ngeen benn mbir mu def certificat médical am ne bañ koy indi aji saar biir na ko ne lëkkaloowul ak kenn ci temps boobu ñuy wax maanaam il n'y a pas eu de rapport sexuel avec quelqu'un mais démb soo xoolee def nañ lu ne pour génnal ko ci gémmiñam mu ne gis naa ay trasu sperme man ni wu góor ci kanamu Adji wax ci nag mënul rafet tey ndax ñooñu teg procès pornographique dem nañ ci ba def manipulation ne moom moo ne am na ay transfert moom te la mu wax dafa ne y a des sécrétions vaginales pas de sperme maanaam am na luy génn ci kii bi wax tuddul turu sperme dafa ne sécrétion vaginale maanaam ci kanamu ndaw si am na lu ci dem génn mais li ma leen di wax tàpp leen net ngeen vérifier parce que ñun nit bu lii xewee dañuy dem di gëstu di laaj ay médecins yi xam spermatozoïde maanaam sperme mën na nekk trois jours après dans l'appareil vaginal une après une relation sexuelle maanaam jigéen mën na séq ak góor ñetti fan kanamam am sperme mais à tout prix démb gis nañu ko xërtalee pour rek mu wax loolu ñu bëgg a def benn lien mooy comme Sonko dafa bañ ne du def test ADN parce que dafa xam ne sperme boobu ñuy wax ci moom la jóge fa salte c'est dégueulasse dossier bii ñu indi procès est dégueulasse dossier bi mënoon nañ ko classé sans suite ma xam Diallo xam na bu baax loolu mais nit ñi dee seen yoon newu ci économie bu paralysé seen yoon newu ci deru Sénégal bi ñu yàq ci àddina wërngal képp seen yoon newu ci Sénégal nekk la risée du monde biir procès bi ay journaliste yu nekk bitim réew ñu ngi fa woon toog di déglu ñu doyadil suñuy institution ñàkkal fayda suñuy institution ñu ne Sénégal fii la toll fii la toll ñaari atu yàllaa ngi nii waxkat yëpp takk rajo on a des vidéos on a ma yàggaleen toog fi ne dara amu ci capitaine Touré jour bi mu ànd ak Ndeye Khady ñu jóge section de recherche ñëw wax na ko démb ñëw ca cabine ba xool caméra ya fa nekkoon benn caméra fonctionné wul d'ailleurs fa gaare rek ñu ne ko Adji Sarr a woon noonu di dem léegi am na benn oto bu ko fi indi mu doon jël ci ay bagaasam xam nga man nee naa leen ci dossier Sweet Beauté bi dama ci xam lu baar want dama ne woon xam nga dafa amoon beneen sax boo xam ne gars yi dañ ko doon utiliser pour buzz ak yooyu man dama ciy wax l'essentiel dem sama yoon. bés dina ñëw ñu nettali lépp ci téere wala ci leneen xaw ma yàlla rek a xam xamaguñ dee yeeg yàqu-yàqu beeg réew meeg xaalis bañ pasar pasaree ñaari atu yàlla ñu toog dem naa ci ba benn jour dama leen di nettaan lu reetaan lu dama toog ak benn ministre ñuy waxtaan mën na ko mais yéen dossier Adji bii doo leen wax seen patron bii mu classé ko sans suite ñu def ci leneen boo leen di combattre Ousmane Sonko ngeen combattre ko politiquement parce que vous avez les moyens de le faire wala ñemewu leen ko politiquement mu ne ma non copain yow xamoo quoi man ne ko waa lu xew mu ne xanaa xamoo ne Adji Sarr dafa yoroon xam nga GoPro man journaliste lay wax GoPro. caméra mu ne caméra produ yooyu nga xam ne danga koy takk nii ah di ko filmer mu ne loolu la filmer Ousmane Sonko ma na ko yow est-ce que yaa ngi réfléchir mun ne ah, man na ko xale bu jigéen buy violé bu ñuy violé muy filme viol bi neex na de voilà saf na sàpp yaa ngi réfléchir li nga may wax mu ne ma non c'était que pour moom ay preuve ak affaire yooyu vidéo yi bañ wax vidéo ba tey jii ñaata waxkat nga dégg ñu wax vidéo vidéo mas na génn luñ fi def montage la ma ne dañoo dem ci dossier bi ba ils ne se rendent même pas compte des bêtises yi ndan wax man Pape Alé GoPro bi ma ko doon gis mu nekk ci armoire 2S bëri fi ah xaadim jox ma benn GoPro sax ma won gars yi luy GoPro defe naa ñun am nañ ci sax ñun waaw man dama daan reetaan dama daan reetaan bañ ma ko waxee pour xaadim wan ma tuuti voilà lii mooy GoPro nii la caméra bi di toll lii nii nii ñu ne mu ne mu ne lii la Adji Sarr takkoon def ko nii <laughs> non bañ du ree jàmm ba muy sëyeeg Eh, Sonko ci la ko ci filme mais xanaa Sonko et ah Sonko nag xam ngeen ne doful voilà piège yi ngeen ko tànn yëpp xam ngeen na doful li mooy GoPro caméra yu ndaw nii la soo gisee ñiy te plongée eh, sous-marine des fois dañ koy utiliser dañ koy utiliser mu ne ma waaw. moom na defoon noonu quoi mu filmer ko quoi ah ba mu ko filmer ah mais xaaral rek procès bi dem ñu ni doon wax ne ay clé vidéo dara amu ci pur mensonge dara amu ci dégg naa xam nga dem ba ci projet di wax wax yi Pape Alé waxoon wala ay dara kooku du jàppee boppam avocat tudd fa sama tur ak yooyu juge bi am ful na ko ñooñu nekku fi bul tudd sama tur te nga maa may jàmm xam man waxoon naa la man du ma tudd turu kenn ñu may wax ñi yépp xam naa seen tur mënoon naa tudd ne ministre sàngam mais du ma tudd turu kenn waaye ku ma boole si say mbir nag ma génn ci kàccat taxawee ne parce que dafa am loo xam ne réew mi il faut qu'on arrête ça dara amul ci dossier bi un dossier vide maanaam man dama jaaxle quoi mais de retiendra tous les acteurs de sa projet pornographique malheureusement dans le mauvais sens parce que li ñuy nettali la Macky ala kulli alin ci nii wala ci naa dina mës a jóge ci bopp réew mi ñu toog nag fekk ñun ñu mag ñuy invité ñu ne leen mais y avait un fameux procès yéen a ngi fàttali ko xale bu jigéen boobu woon yàlla ñu yàlla may gudd fat ak fekkee laa ñu ne kan ñu ne laa xale bu jigéen boo xam nga daan sàkku meeg bref àddina wërngël tépp di ñu seetaan ba pare di ñu mokke di ñu reetaan xam nga nu mu tudd xaaral ma wax leen turam léegi xam ngeen kii nu mu tudd am na benn euh, kii euh, mu tudd xam nga fan yee paase Donald Trump am na benn euh, staru film X Stormy Daniels waaye kooku sax man d'accord naa parce que kooku xaalis moom dafa nangu ne damaa que dëkk Donald Trump Donald Trump corrompre pour ma bañ a wax moom sax nangu na tëdd bi na tëdd bi moom consenta moom sax gañe na ci ay millions gañe na ci ay millions ci loolu tey ñu dem ci un procès sans défense xam nga bu ñu wax ne dañoo commettre avocat d'office pour Ndeye Fatou pour euh, Ndeye Khady Ndiaye dama leen di nettali fii ne leen avocat boobu 16 heures la yëg loolu bu ñu commettre d'office parce que benn avocat nekku fa te pour pourtant article 273 dafa leer dafa ne dama leen koy liiral à l'audience la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire Si le défenseur choisi ou désigné conformément aux articles 101 et 2 du présent code ne se présente pas, le président en commet un autre d'office. mais ki mu commettre 16 heures la ko woo xanaa boo commettre avocat 16 heures procès bi ubbi bu yàgg procès bi ñu ne xaw ma 400 et poussière page la n'est-ce pas mais kooku na lay amee temps xool dossier bi objectivement rek xool dossier bi ba mën a defendre euh, Ndeye Khady donc Ndeye Khady Ndiaye rek ne était sans défense et loolu ça nul ñoo la ko gën a xam la procédure mu ëmb nekk ci juróom-ñetti weer mais it fallait que dossier bi ñu traité ko pare ci parce que ñoom dem nañ sax ba sonn gis nga dañoo xam ne dañu sonn parce que xoolal li may wax dangay ngay génn ci réew mi tàngaay bu métti bi blindé yi wër la foo dama yërëm sax takk der yi yàlla nañu yàlla gaaw a génn ci lii ñoo un procès chambre criminelle Ndeye Khady Ndiaye moom toog na Sonko ñëwul bu ko neexee ñoo Sonko ñëwul ay avocat du ñu am droit parole mu dem Ndeye Khady Ndiaye est sans défense parce que mënuñu commettre un avocat à seize heures moo tax démb ñu ne Ndeye Khady Ndiaye niñ ko traité huit mois sans grossesse ñu bañoon sax mu toog huit mois de grossesse mën na ko du fi lu bees bu mbir yi di xaw comme ëmboon trois gendarme lañ ko tiimale ci hôpital Albert Royer foo xam ne xale yu matul ñoo fa nekk nga am xol yóbbu fa trois gendarme ñu wër foofu commandant ngi ñëw coow li bari docteur hôpital bi dégagé ay responsabilités man leen ku def loolu war ngaa mën a ñëw mujj nañ ko bàyyi mu toog mais elle est restée sans défense lu tax avocat yi ñaanoon renvoi mais boo ñëwee ñu jox la ngay constitué wu ñu ñëw ñu jox la dossier xanaa dossier bi dina la may sax temps boo ko xoolee loolu yëpp man xam naa ne mooy bañ koy wax sax démb man mu ne leen man vraiment bu leen sax bu leen sax am yaakaar bu leen ci am yaakaar sera retenu et jugé moo tax waxuma ko maître clerc de cérémonie moo ko wax mu ne le tribunal va prononcer la décision sur commande maanaam li njiitu réew mi Macky Sall bëgg moom la ñuy def on attend de voir on attend de voir ce qui ce qui va se passer mais nous allons refaire le procès parce que démb capitaine Touré am na yu neex yu mu commencé wax. yoo xam ne xam naa damañu xuus bi ci biir mais nous solo refaire le procès ñu xam la xew lépp ba mu yegsee ca biir section de lépp ba ci dàq capitaine Touré incha allah beneen poñ bu ma bëggoon waxtaanee ñëpp gis nañ ne journalistes yëpp yi nga xam ne dañoo taxaw les journalistes debout les journalistes qui ont décidé de rester à côté du peuple en disant la vérité rien que la vérité te yi di xam ne journalistes yii dañuy wax li ñu xalaat seen aqulaay taala peuvent même se tromper de bonne foi mais c'est pas des journalistes couchés c'est pas de journalistes qui ferment les yeux c'est pas des journalistes qui en 2011, dans 2012, n'étaient pas d'accord avec le troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, qui nous des euh, journalistes qui nous disent que non c'est conseil constitutionnel qui doit trancher te boobu lañ dem bind mi ngi fi ne weng ñu koy gis kuy waxal yàlla te yàlla tax xam nga ne Serigne Saliou Guèye Serigne Saliou Guèye mu joon toog fii yàlla mi ma tiim xam na ne ba mu ñëwee fii ñu toog sama bureau ñuy waxtaan mu ne ma Pape maa ngi xaar sama convocation xam nga dafa ñaaw sax boo demee ba yow <laughs> il ne te surprend même plus te ne mu ne maa ngi xaar sama convocation te wax naa ko sama njaboot démb ba ma demee sûreté urbaine maa ngi koy wax maanaam collègue am ya fa nekkoon. ñu bëgg ñoo gëmloo carte nationale de presse ñaata journaliste moo fi am fii ci Sénégal est-ce que en instant T ñëpp mën am ñëpp mën a carte nationale de presse damay laajte commission bi day réunir nga déposer ay dossiers commission bi réunir délibéré ñu jox ñooñu mu amaat yeneen déppo commission bi du du réunir chaque jour léegi prox ndoll boobu la ñuy jaar di seet man ministre bi dañ wax ne ba ma nekkee kaso Pape Alé du journaliste moom moo ma jox sama carte nationale de presse voilà man moo ma jox sama carte nationale parce que j'ai fait exprès pour leur dire xam nga wax naa ba le passé ne la même il faut être intelligent il ne faut pas être parce que xamoon naa ne tôt ou tard seen caay-caay yegg na foofu xam nga mooy lan fexe ba yow bu la wooyee léegi ku njëkk a woo da lay wax est-ce que am en sachant que en instant T cinq cent journalistes sax mën na ñoo amandoo carte nationale de presse piège la mais li ma jaaxal mooy pat ni d'accord naa on va assainir ce métier mais dara du lu bees nag Ah, fekkee nañ 2005 magistrat Bamba Niang moo présidé woon la commission à l'époque j'étais à Sud mu présidé commission bi defe naa Mamadou Omar Ndiaye moo représenté woon euh, les patrons de presse à l'époque waxuñu woon sax journaliste ce groupe la wax ne vos journalistes qui, détenir, qui désirent avoir la carte de presse sont de présenter tel tel tel papier groupe bi defar tout un document yóbbu ko ministère la communication ñooñu réunion lan moo ko réunion délibéré jox leen seen carte de presse la carte nationale presse de 2005 xaw ma la li bii de lu ko yàq politiciens yi ñoo ñëw dugg suñu métier. Macky Sall ba muy campagne amoon na fi fréquence rajo bu ko Ahmed Khalifa Niass def naa jaayoon créé nañ fi ay journaux ñoom ñoo dugg ci métier bi il est midi bu njóogu waak sekk bi nga xam ne benn objectif la amoon mooy di saaga Idrissa Seck à l'époque man mii lu ne tuddal dundal na ma ko lu ne waxal na ma ko ndax boobu temps yooyu man je crois dama doon wax ne Idrissa Seck est victime d'une injustice ma doon défendre Idrissa ba ñuy wax ne je suis un pro Idi ana tey ana Idi ana man ba Paris toog naa ak moom Saint-James ba muy tiitaroo ñuy waxtaan voilà ñu ma doon wax pro kii Ndiogou Wa Seck il est midi Ndiogou Wa Seck fait partie des personnes les plus saaga bu gën a ñaaw moo ko daan def ñoom politiciens yi am dafa de ba ñu ci duggee ñoo dem jël seeni nit recruter leen benn ñaar ñett dugal leen ñuy ñoom carte nationale de presse boobu la carte nationale de presse 2005 yàqoo tey jii ñu indiwaat ko ñoo ne dañuy assainir métier bi mais ñun journalistes yi suñu bopp ñooy enfoncé teew Serigne Saliou Gueye plus de vingt ans ou vingt cinq ans mi ngi exercer métier bi ñii di yuuxu di wax tey jii mën na leen jàngal saa bu bindee xalimaam tarfakàlla macha allah saa bu yëkkatee kàddoom kàllaamaam tarfakàlla macha allah li leen ciy déranger kay mooy Serigne Saliou bu toogoon fii ne Macky est on n'a jamais vu un régime aussi efficace on n'a jamais vu tel tel tel kenn du ko sonal mais nag jot na foog naa dañuy bay bayal maanaam ñii ouais non on va pas se ah il faut comme ni ñu ne non on défend pas aller pour le principe pas grave merci beaucoup pour tout ça Guinée bërki démb moo njaay journée sans presse lañ def devant la junte bi nga xam ne daf leen bëgg a muselé ñun Sénégal loolu xalaatuñ ko fi parce que Sénégal quatre-vingts pour cent des groupes presse sont contrôlés euh, euh, par le pouvoir ñi ci résister benn ak ñaar ñëpp dañ leen a xool ngor la fa xew mu mënuñu ko wane mais la xew Ukraine day génn ci télé bi amul problème ñun yàlla moo ñu joxugul ay moyens yu ñu ko mayee mais buñ ko mayee dañuy wàcc sur le terrain bi def li nga xam ne moom la askan bi bëgg kon Serigne Saliou Guèye ngeen dellu si wat xel yi te nag damay dànkaafu léegi sëñ Saliou ñoom ñoom woo nañ ko fan yee paase du dugg ci détail yooyu bu nekk waxee indi wax bu ñu demee ba wax jot ko bàyyi mu ñibbi këram bundu bi doy na mais j'ai comme l'impression que régime day ubbi fu ne ay foyer de tension ba kenn du tal l'essentiel lu ne ñuy wax te pourtant ñoom journalistes yi ànd ak ñoom dañuy toog ci seen tele yi di toog ci télé yi di fen di sos di inventé di wax ci dossier boo maîtriser wul dara parce que su ma koy wax man dama kaa dama ci nekk victime moo tax dégg naa nit ñi wax ba wàccu ci télé yi te xamuñu lenn lu nekk ci dossier bi élément de langage yu leen pouvoir bi jox réunion seen groupe whatsapp yooyu ah xamoo ne ñu nit nag am nañ benn caay-caay dañu làmboo jikko wuyu ak jikko wàlliwu ñi leen enfoncé ñëpp groupe whatsapp ba ñu nekkoon mu remercier Alioune Ndiaye au passage bu Africa 7 lañ da wax yëpp gars dañ ma transféré message yëpp ku nekk nag su ma la xoolee damay na pat rek xam li ma xam c'est la même chose aussi aujourd'hui parce que ñi leen di utiliser ñoo leen di jaay parce que yéen vous êtes déjà dans les tiroirs ma leen di wax lu leer mais ñun ñu ci posé ñoom ne kii. ñun dañoo xam ne non boy il faut venir tu sais telle personne qui parle là oh, oh kooku une grande rek mais tu sais kooku moom c'est déjà acquis mais yow wàññil tuuti ñaata yoon la ñu la toog dañu teg ay kilifa yoo xam ne ils sont à un niveau institutionnel di wax mën na leen teg leen affaire yi ci yoon ñëpp ñu war a bokk ci élection yi nañu bokk Sénégalais yi tànn mu jeex tàkk affaire yi fin mu tànnee après ku nekk def def li nga war a def. ñu respecter les règles du jeu démocratique bàyyi justice bi di àtte juge yi jàpp seen bopp seen am seen indépendance kon ñun journalistes yi war nañ defaraat toogaay bi war nañu xoolaat suñu bopp parce que li ñu jógtee ci carte de presse ñëppay dugg kaso nañ lim sur le nombre exact de journalistes journalistes yi am carte nationale de presse nañ ko lim nañ ko génnee def lim bi loolu seen Synpics war na koo def bu nekkee ne journaliste lañ fi nekk war na ñoo taxaw wax na leen attention alerté mais malheureusement peut-être que bon lépp daal kenn mënu koo wax ñaan rek képp ku bëgg a teg fitna réewum Sénégal askanu Sénégal yal na yàlla wàtt ci yow ak sa njaboot fitna goo xam ne doo tal askanu Sénégal doo tal teg fitna réewum senegal nee leen amin nee leen amin képp ku bëgg a yee fitna wala dëkkoowoo ci di ko yee ci say décision ci say prise de position yàlla na yàlla wàcc fitna ci yow ak sa njaboot ba doo tal wax waxu fitna wala taal fitna ci kaw askanu Sénégal ndax ñun jàmm lañ bëgg dañoo bëgg dem ci élection yoo xam ne ñëppay bokk ñu war a bokk bokk après nag sénégalais yi ñoo xam ni ñu tojee seen bopp dina ñooy tànn ku leen neex daf ku njiitu réew xam nga ne ma Macky da cee dal <laughs> li benn booy doon wax rek su fa wax jooju dafa ma reetaan loolu torop mu ne nga nekk euh, jabaru faj mer ñu takkal la wujj ju ñu bëgg ngay xataraay ba doy waar déggu leen ma de nga nekk jabaru faj mer waaye dem indi la wujj gi nga xam ne moom la bëgg ci xolam ngay xataraay boo sàgganul yaay dem de kon gaa yi nañ ñaanal réew mi jàmm mais képp ku fi bëgg am fitna yàlla na fitna dal sa kaw yow di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen dig dajee incha allah ci beneen waxtaan jërë ngeen jëf.